jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy topp ci 24actu.com ñoom mbégte lool di ànd ak yéen ji nag ñu fas yéen waxtaane lu jëm ci diggante ki nga xam ne rek moo di Mamadou Dia ak Léopold Sédar Senghor ñaari xarit yoo xam ne ràññee nañu leen lool diggante Mamadou Dia ak moo di Senghor waaye itam góogale ko diggante mu mel ne nag am na loo xam ne moo jot a ñëw daal di tàqale ñaar ñooñee muy coup d'état bi nga xam ne rek doon nañ ko jiiñ Mamadou Dia ci xaritam boobee nga xam ne rek moom moo di Léopold Sédar Senghor moom Mamadou Dia jafe-jafe am diggante mag Léopold Sédar Senghor gannaaw ëttu àttekaay bi ay tuuma yoo xam ne rek jotoon na koo teg ci ndodd Mamadou Dia moom may nga xam ne dafa jàppoon ne daf doon bëgg a fexeel di Léopold Sédar Senghor jamono Diodier moom Dia nekkoon président du conseil waaye tamit nekkoon ministre de la défense waaye itam du moom kese la ñu tuumaaloon ñeent ci ay ministres yoo xam ne rek jotoon nañ leen a tuumaal Ibrahima Sarr Joseph mbay wal Jooja Ndiaye Alioune Tall gannaaw dogal ga nag ba mu wàccee daal di koy jëmali ci nga xam ne rek moom moo di Mamadou Dia juróomi ati kaso yoo xam ne rek jotees na ko tëj fi nga xam ne rek moom moo di Kédougou. Mamadou Dia, Joseph Mbaye, ancien ministre, 20 ans de détention. Aliuntal, ex-ministre, 5 ans d'emprisonnement. et 10 nag ca jamono jooje ñu nekkoon nag ci régime parlementaire am génn ak wàll goo xam ne rek moom Mamadou Dia moom moo ko yore woon waaye itam Léopold Sédar Senghor waaye nag mbir yi di gën di dem see nag diggante di gën a ñagas juróom-ñetti fan ci weeru novembre atum 1962 gannaaw discours goo xam ne rek Mamadou Dia jotoon na ko yëkkati discours boobee nag mel ni nag Léopold Sédar Senghor da cee am noo xam ne rek gisoon na ci boppam gannaaw ay takk der yoo xam ne faa yebal loolee tax na nag moom Léopold Sédar Senghor yëkkati woon bi le discours. Sénégalaises, Sénégalais, aujourd'hui 17 la situation est grave, dramatique. Sur ordre du président nationale a été cerné par une compagnie la nation ont et plusieurs d'entre eux ont été arrêtés. la ñaari xarit yoo xam ne rek ak diggante goo xam ne rek ay jafe-jafe ñëw na taqale leen muy lu jëm ci wàllu wàllug politique ak yu ni mel diggante goo xam ne rek amoon na ay jafe-jafe ci wàllug àtte baak yu ni mel gannaaw daan yi nga xam ne rek jotoon nañu ko lal ci ak ndoddam gannaaw nag moom Mamadou Dia ba mu génnee kaso lu jëm ci wàllug politique ngir ñëwaatoon ngir duggaat ci waaye nag àttekat bi nga xam ne rek jamono joojee nekkoon Ousmane Camara itam ci ak livre goo xam ne rek jotoon na ko bind ci atum 2010 livre googee kay bu nu ko yëree moom kay dafay xam ne ne diggante boobee kay politique dëgg moo ci raxoon ndax ki nga xam ne rek moom moo di Mamadou Dia moom jotoon nañu ko daan laata ñu koy atte ndax kay li doy waar moo di Mamadou Dia amul benn preuve bu dëgër boo xam ne rek wala benn tuuma gu dëgër goo xam ne moom la ñu ko doon toppee xanaa kay wujjeeg fiir goo xam ne doxoon na ci digganteem ak Léopold Sédar Senghor ba ñu demee nag ci atum 1962 moom Mamadou Dia mu génnee kaso itam ba bëggoon a politique daal ciy duggaat fekkoon réewum Sénégal amoon ay jafe-jafe yu metti loolu ci atum 1962 la woon jafe-jafe yooyee sax tax na maanaam moom Mamadou Dia li nga xam ne rek bëggoon na ko dëgg-dëgg ci wàllu politique mu jéewu ko am mu nekk nag ñaari xarit yoo xam ne ràññee woon nañ leen lool mel nag politique ba mujjee jaar foofee daal leen di tàqale muy ki nga xam ne rek moo di Mamadou Dia ak Léopold Sédar Senghor